na yéen ñu ñuy suivre Sénégal Buzz 221 tey ñu ngi fii si dëj bi nga xam ne mooy Papa Yade Assane Diop ñu ngi fekk Sa Thiès bu duubalee Sa raxu bale gay 2 Salif maa waa ziar. ñu ngi doon ziar bu baax a baax sa doon yàlla bu baax baax. Salif dina la teewaay bi lañ moo ko waral dañ lay laaj sa diggante ki nga xam ne mooy Papa Yade ak ñoom Kowens ak mbëru lébu yi nga xam ne am ngeen ay relation waaw xam nga li boole mooy mbër la mooy mbër ñu doon bokk ci làmb. beneen bu ci des ñu grand bu baax yoo xamante El Hadj tudd moom moom moo boole ak moom euh, kooku laa xam te moom booyam la dañ daan nekk lu bëree bari suñ daan déggan téléphone yéen suñ daan déggan téléphone yéen saa dama koy paas mu nekk ni ku baax nit ku nit ku woyof nit ku wax dëgg yàlla ba ma ko présenté ba léegi wax dëgg yàlla waxi jàmm ak conseil la may digal ñaanal ma aussi tamit waaw yaayam tamit mu nekk koo xamante ni suñu famille dañoo bëgg trop waaw dëgg yàlla loolu moo ñu boole moom gannaaw yàlla moom. mais gars yu bëri dañ ne mbër yi dañu war a moytu dëru yi ndax dafa manqué sécurité Sa Thiès loolu parole am lan la si ne. waaw xam nga tey euh, moyen moo demee noonu ni ku nekk sa moyen fu mu toll rek moom ngay dugg te am na ñoo xamante ni yor nañ dëru ba mucc am na ñoo xamante ni yoruñu ko te mucc nañu am na ñoo xam ne yor nañ ko mucc kon ñi ñaan rek ñu daw nànk rek bañ a yàkkamti dara. waaw du dëj bi nag moo tax wala du kaa moo tax lu bëri ñu war ko changé c'est que am na yoo xamante ni dañ ko war a waxtaanee balaa moo ñëw am yoo xamante ni duñu xaar mu weesu ñu wax ko mais l'essentiel bi ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla xaaree ko àjjana da nekk na nit ku baax nit ku amul avenir ku ñu yaakaaroon ci làmb si mu nekk ni koo xamante ni ku ñàkk ñaan la warasement parlement moom dëgg yàlla bu ñu déggantee ba léegi dañuy waxante lu baax waxante lu nice dëgg yàlla ci fair play ak conseil yu may jox yu ma koy jox it loolu lañ mos a sekk mu nekk ni ku baax mais maa ngi ko ñaanal rek yàlla xare ko àjjana yàlla may waajuram yi fi nekk xolu muñ te xam ne lii ci fenn kenn ku nekk sa bés ci bis yi mais yàlla na yéex rek waaw jërëjëf. hélas comme ni ma la ko waxee rek ñu ngi fekk Quench Boy ndaanaan bu mag bi doom Bargny bi Quench maa lay siyaar. waaw mais mu doon da maa lay delloo siyaar di la bëgg lu bëri waay. waaw ngay jaale liñ bokk ki nga xam mooy Assane Diop ñu gën koo xam si Papa Yada di ndaanaanu làmb koo xamante bi nii sa waay la woon te yan kàddu nga na mën a seede si moom. waaw kàddu yi ma mën a seede si moom bari na parce que euh, Assane Diop moom Papa Yada mën nañu wax si moom lu bëree bëree bëri parce que suñu xarit la suñu gaañ la te tamit dañu loon demalante di dikkalante day ñëw suñu kër damay dem seen kër. teg si yaayam sax dafa ma doon wax ne ne Papa Yada mi yow laa ko may da loolu dafa rëy comprends nga dañ koy jaale kenn ku si ne mën nga ko jaal sa morom parce que moom ñëpp woon frontière ñëpp la dugalanteel. li muy am xandal si làmb yëpp boo ko gisee sans làmb da ngay xam ne ne non kii nii rek la mën a mel teg si mu doon xaritu yaayam bàyyi fi soxna bàyyi fi doom bu ndaw may wax ne tamit gars yi bu fekkee ni da nga am si moom yéene nga ne da nga koy defal mu tey bés jot mu génn àdduna yaayam a ngi fi soxnaam a ngi fi ay doomam a ngi fi kon yaakaar naa yéene boobu da nga ko war a matale si ñooñu ma koy jaale ñëpp di ko jaale ahlu làmb yëpp di ko jaale Tëngéej di ko jaale Rufisque bi yëpp di ko jaale Bargny gi ma dëkk comprendre nga suma waay la suma gaañ la yàlla nag moom bu bu namee jël jaamam du du bu namee jël jaamam du ki la si xaar wala kële saa yu namee jël jaamam da ngay jël bu koy indi du tàggu kenn bu koy jël du tàggu kenn moo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un si yàlla la jóge si yàlla ñuy dellu te am nañu jorta bu rafet ne moom yàlla mi nga xam ne moo na ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma dolli ñu ngi ñaan moom mi nga moom raj moo am ajana moom raj moo am yërmandeem mu yërëm mu yërëm ko jéggal ko atte ko si yërmandeem bu yaatu boobu moom mi nga xam ne tamit moo am ajana mu tàmbal ñu ko si ajana yi gën a kawe parce ñun moom mën ñu wax si moom parce que dafa sori suñu xol koo xam ne temps yi passé nii rek laa ñëw daju ñoom maamu amane ñu toog di waxtaan boo ko benn boolu anjaañ di waxtaan ñuy wax si combat am bu ñuy doom moo jóg son yooyu comprendre nga ñu wax si débat yi mu doon nag koo xam ne nag ku ku yaatuloo boo xam ni nitu nit ñi la comprends dama doon dem këram fekk ay pigeon am jàpp yëpp si saako yóbbu comprends nga kon kooku mën naa seede si moom lu bëri bokk naa si koo xam ne man dama lay demalantee moom diggalantee moom day ñëw si kër fekk samay pigeon wala samay bëy wala samay xar sañci lu mu lu sañci def comprends kon kooku dañ koy ñaanal yàlla mi nga xam ne moom moo am yërmande mu yërëmal ñu te am nañ yaakaar bu baax xale la tey ku si nekk yaa ngi toog déplacé woo benn mètre lépp di ko xaar pour mu ñëw ñu gunge ko ñu gunge ko eh, eh, ñu gunge ko ba fi nga xam ne fa lañ mën a yem ak moom ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko parce que jullit moom xam naa ne jullit la tamit xam naa ne taalibe Serigne Touba la xam naa ne taalibe Cheikh la comprendre yaakaar bi mu amoon Serigne Touba Cheikh Ibra yaa nañ ko eh, gisante yomal xiyaam ñu ngi ko koy ñaanal te am ñaan biñ koy ñaanal yàlla dina ko nangu parce que yàlla moo na fuñ 40 personnes ñaan ma rek mu am ku ma si ruus xam naa ne fii 40 personnes yi fi lii fi nekk ëpp na sax ëpp na ko ëpp na sax 1000 personnes dañ koy ñaanal nag yàlla xaare ko àjjana fii taw si am nañu yaakaar bi lool di ko jaale nag alu làmb yëpp yëpp yëpp yëpp di ko jaale samay mbokku mbër yëpp ñun man ñu wax si moom man ñu seede si moom seede bi ñuy seede si moom mooy ku baax la ku yaatu la jullit la koo xam ne tamit xaritu yaayam la man ni mu mel ak yaayam moom ma gën a yéem si àdduna parce que mooy yaayam xarit lañu complice lañu tey bu amee combat day mel ni yaayam moom mooy bëre loolu dafa rëy fépp foo xalaat ne bu fa duggee mu am ndam bu Assane di bëri dugg na fa kon maire bi dañ koy ñaanal yàlla may ko xolum muñ si doomam ji parce que doom la si moom bu bare mais daf ko taxa di nga jur sa doom mu mel ni doom bi nga jur maanaam day doon sa nawle doon sa xarit doon sa lëngoo comprendre nga boo duggee rek xam ne kii mooy yaayam yaay ak doom nii lañu war a mel loolu maa ngi koy ñaanal yaayam daal yàlla may ko xolum muñ xam naa ne ko sori la si xolam. Mhmm. kon ba tey ñu ngi fi fi nga xam ne mooy Tëngéej si dëju Papa yaada bi maa ngi fekk ki nga mooy Soko Sim ndaanaan bu mag bi doomu Tëngéej bi Soko maa lay siyaare. waaw maa lay fay. Sim si loo nekk. sant yàlla bu baax a baax. di jaale li ñu bokk di ki nga xam mooy Assane Diop. ñu la koy delloo di la ko jaalewaat bu baax a baax a baax waaw di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun di wax ne métti na torom nag waaye aussi tamit dañ koy sante yàlla daal bu baax a baax ñu xam ne yàlla buur bi suñu borom moo ñu ko mayoon aussi tamit moom moo ko jëlaat kon dañ koy sant yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla oyof ko suuf koom yërëm ko. xaare ko àjjana yi gën a kawe kawe kawe kawe te yéex a ñu na trop nag parce que boo xoolee dafa deewee ndaw quoi te xam nga rek mooy loolu daal metti na trop trop trop. Mhm. mais jotul tamit euh, du ma ne mbëri kese képp ku yor deux tamit nga jël ci say matukaay bu baax ndax gaa yi dañ ne deux lu manque sécurité la. waaw la loolu dëgg la manque sécurité la aussi tamit waaye xam nga rek tamit ndogal su ñëwee tamit. ndogal bu ñëwee kenn mënu dara ñun daal liñ ko jàppe mooy yàlla moo ñu ko joxoon kon yàlla jëlaan na kon tamit aussi tamit dañ koy sant yàlla bu baax métti na nag trop trop parce que xale bu amoon avenir si làmb la xale bu tëngee ci yaakaaroon waaw kon tamit tey tiis bi su ñëwee dañ koy sant yàlla daal bu baax a baax a baax hmm. jërëjëf jërëjëf. Ah, seede yi ma mën a def si moom bari na lool ndax xale bu amoon yërmande la ci yaayam di am seen amoon yërmande ci ak kalaasam amoon yërmande ci waa dëkk bii ñu nekk ni ndax bu musaan béréje bu béréje ba ñëw ku ca war am ñaar dërëm dina ko ca am ko ca war a am dërëm dina ko ca am te fonkoon na yaayam loolu moo ma gënoon neex ci moom ma di ko ñaanal yàlla yàlla na dee dina fa laayam ba bés bi muy gaañoo sax gis nañu taxaw nañu waxtaan mu ne ma maa ngi dem côté asolem te ñëw man ko demal te ñëw ak jàmm ah wax dëgg yàlla ñàkk nañu waaye nag Sénégal yëpp a ñàkk ñu di ko ñaanal dekkee àjjana mottalee fa ak ndawam ndax bëggul na ñëpp ñëpp ko bëgg. ci dëju ki nga xam ne mooy Papa ni numéro 2 doomu Tëngéej mi ngi nii doomu Tëngéej maa ngi lay siyaar. Modou bu baax. Modou Anta nga naa may Modou Yassé. <laughs> Modou Anta maa bu baax a baax. ñu ngi lay jaale liñ ki nga xam ne mooy Assane Diop fi àdduna bis ni ki démb. ah Modou Anta ñun daal ñun am na lu ñu métti loo loo xamante ne ni Papa Yada suñu nit la suñu xarit la suñu frère la. Eh, dañ cay ñaanal fu mu jëm gënal ko fu mu jógee nit ku baax la koo xamante ku fonk yaayam la waaw parce que moom nitu làmb la Baye Fall la man daal sama xol moo fees mënu ma wax lu bëri si moom parce que moom suñu gaayan la suñu xarit la e Badou Mbare Badou tamit du jóg si moom ak mam ñaaw Molow parce que papa yaadu moom mooy tëngëj ki mu tuddee boppam sax kooku mooy tëngëj a ñun nag ay ndaw lan nekk fii nii waaw di ko ñaanal daal lu mu bëgg si lu mu fu mu jógee fu mu jëm gënal ko fu mu jógee di ko ñaanal bu baax a baax di ñaanal ak lu làmb e xam nga xam na ne ñàkk na xale bu ndaw waaw xëy na suñu borom nag mooy dogal waaw dañuy nangu lu yàlla dogal di ko ñaanal bu baax a baax a baax dox deretu tëngéej drapeau tëngéej moo ko ñor xama tax yàlla boole ñu ak moom yaayam doon nit ku baax yaay ju jullite yaay ju ñu uuf ñun ñëpp te xam nga sunu yàlla bu ñu bu ñu mat yaay fépp seetaanuñu su dara sant bi ni moom moom daal la ñuy gën a mosaw coono ndax ñun lu ñu ñàkk a ñàkk moom moo ñuy gën a ñàkk mais moom xam na fi ñu yegg si doomam xam na xam na fi ñu teg doomam loolu rek ndam la jàmm la. te mais bi nii moom moo ko daa yow yaa ko daa toogal ci mikaay yan seede nga nu mën a wax si moom. seede yi dafa bëri boo bu ma la koy wax nii du ma fi jógee barki Serigne Touba mais naala si may ñaar yoo xamante ne doomu aadama bu ko bàyyiwul ginnaaw di ko dund rek xoola nekk nga si lu wóor te muy ñaar yi gore na yërëm na doomu aadama du taxaw fu ñuy doomu aadama muy ki mu bokkal deret ak ki mu bokkalul deret seede boobu doon na loo xamante ne mu gàtt mu néew man dinaa leen ko wax waa jëmm jooju ku yërëm doomu aadama la ku bëgg nit di ko ñaanal fi mu dem nii tey xama gënal ko fi mu jóge di ko ñaanal moom ñam fa fekk ñëpp yàlla xare leen àjjana te yërëm leen bàyyi ñu fi ñun ñu fi des ba kanam ak sunu yaay yi ñëpp loolu lañ amoon luñ doon demande rek waaw suñu bi daal xam nga waaw ñu gàttal rek. waaw sawaay moom li ñu wax si bari na quoi ndax man depuis bi nekkee xale ba léegi depuis bi nekkee xale ba léegi ñooy ànd Assane booy bu baax la amul benn problème xëy na tey lii bett na ñu bari mais yàlla lu mu def loolu moo gën mais Assane amul problème mu àdduna lu ko nit gën a soxlaa mu bàyyi la kaax yow. billaahi ñëpp a ko boo xooloo mbooloo mii rek nga xam ne Assane Diop ku baax la billaahi man mu juddee ba léegi ma xam moom mooy ànd bi nekkee gune xaalisam pour mu daan demee géej yaay ma la daan ko jox pour mu jëndal ko ay yére yu mu daan yóbbu géej. billahi moo tax démb boo ñëwee fii mag ñi xale yi ñëpp a doon daanu affaire bi daal tiis na ñuy ñaan yàlla sunu borom xaaral ko àjjana yàlla na rëcc mu doon def si kaw suuf yàlla na ko yàlla yërëm Assane moom jàmbaar la et booy boo xamante ne turam da ko dépassé koo xamul dégg nga ko mais na ñaan sunu borom yàlla na ko yàlla xaar àjjana gën a kawe mbokki mbot internet Sénégal Buzz ñu ngi leen di nuyu ah ba tey ñu ngi fi nga xamante ne yaakaar naa moo di dëju ki nga xamante ni moo di Papa Yade numéro 2 di ndaanaan di li nga xamante ni moo di lamb du ci wane boppam tey nag ñu ñëw fi nga xamante ne yaakaar naa suñu borom jël na ko ñu teew ci li nga xamante ni tey mooy bésu 10 bi Pape Sarr maa ngi lay ziar bu baax waaw maa ngi dellu ziar waaw di leen nuyu di nuyu site bi di nuyu population bi ñu fi fekk waa Tëngéej yëpp tey tey ku nekk a ngi fi xam nga wax dëgg yàlla maa ngi koy tiis bi daal maa ngi koy jaale waa Tëngéej yëpp di ko jaale axlu làmb xam nga sama teewaay bi moom wax dëgg yàlla kii suma freer la parce que euh, avant tabaski moom waaw ama neex jox na ma numéro am ba ñu waxtaan moo ko caatu yaraax waaw billaahi numéro mu ngi nii ay vocal mu ngi nii suma téléphone waxtaanoon nañ ñu man ak moom xam nga sax guddi ñuy wax ba nga xamante ne bëggoon naa combat am moo caatu yaraax wax dëgg yàlla di ko jaale nag di tiis bi daal ñun ñëpp a ko bokk daal waaw waaw. tiis ñun ñëpp a ko bokk yaakaar naa ngay doomu Pikine muy doomu Tëngéej tey ku ne xam na Pape Sarr doomu Tëngéej Pape Sarr doomu Sénégal lañ la def ban témoignage nga a joxe ci ki nga xamante ni mooy Papa Yade. waaw xale bu am avenir la xale bu gëm bëgg li mu doon def la ku baax la tamit parce que man ak moom xamante wuñu ama neex laa xamanteel mais bi ma ko ama neex joxee wax dëgg yàlla muy xale bu am respect. chaque guddi dañuy waxtaan ma nag moom whatsapp chaque guddi xam nga mu ne ma moo te lim ma lim ma lim ma doon wax mu ne ma xoolal ma yow demal nañu nangu rek xam nga ne kon kooku neex naa liggéeyal daal waaw ma koy jaale famille yëpp di ko jaale waa Tëngéej daal wax dëgg yàlla tey moom xam nga ñuy xaar daal pour jébbal ko suñu borom daal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana di masaw waa Tëngéej yëpp yëpp mbo kii axlu làmb ñëpp laay masaw daal waaw di kontaan ci yow bu baax comme fi toll nii moom moom wax dëgg yàlla damaa ànd ak xol bu xol bu fees daal waaw waaw kay. Pape ngi lay jaajëfal waaw kay jaajëf. kon ñu ngi fekk Papa numéro 2 bu Papa ñu ngi lay siyaare. waaw Mouranda maa ngi lay fay di waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku fi teewa ah. di ziar ñëpp waaw di ñaanal suñu xarit bi su jógee muy Papa Yade numéro 2 yàlla yërëm ko te ko àjjana fi dawsi mais tey dañu gis ahlu làmb njaboot gi ñëpp ñu gis leen ci biir làmb mu mel ni mbëri bu ngeen bëriwul yéen ñëpp ay doomu ndey waaw loolu moo ñu war ñoo bokk ndey ñoo bokk baay benn temps bi la rek lañuy am si biir géew bi bu jeexee jeex na waaw képp ku xew la muy naqar muy bànneex da nga gis sa moroom te yàlla moo wax ni xam nga doomu aadama yi ku nekk na nga def ni nga def sa bopp na nga ko def sa moroom quoi nga bañ a sonn te amaana Papa Yade li ko li mu ji doomu aadama yi rek loolu la ko nit ñi fay quoi doonoon nit koo xam ne Baye Fall la woon borom baax la du jàpp mer doonoon champion làmb moo ñaax xam nga di ko ñaanal yàlla yërëm ko taxaare ko aja na daw si quoi waaw. yow sa première défaite moom moo la ko daan. moom mun naa ne la moo ma def mbër ndax sama quatrième combat moom quatrième combat ñu daje ma ak moom mu war doon koo xam da ngay daan dem. yàlla suñu borom def mu am si man ndam lu rëy ba ma fi jugee ba léegi Papa Yade moo ma def mbër man mu doonoon nit ku baax nit ku oyof ba ñuy mujjee gisante Iba Mara daa daw ba si man ñëw lëng ma si joot mu si joot mu ma yaay sama champion man yow laay wër xam nga ma mu doon loo xam ne mbégte la si man te bu ko neexoon mu ne maa daan Pape Thiam bu ma ko romb dama koy jaay kon yeneen mbëri li ñuy def mais doonoon na nit koo xam ne Baye Fall la ko wàcce boppam la ku waaw mooy loolu daal di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xaaru ko àjjana fi daw di ko jaale bépp mbëran ah muy mbëru tëngeej ak kudul mbëru tëngeej maa ngi leen koy jaaree yàlla yërëm ko xaaru ko àjjana fi daw si daal kontaan nañ bu baax a baax jaajo si tëngeej waaye kii ñu toogal day kenn ci ñi nga xam ne mooy waa tëngeej tëngeej bu noon garab la dañ naan kii ñu toogal mooy reen bi di maam ñaaw maam maa ngi lay ziar lay ziar waa santaak muñ gërëm yàlla. ñu lay jaale li ñu bokk ki nga xam mooy Assane Diop. waaw vraiment di aussi tamit si gisa wàll waaw. mais bi nga déggee ñu ne Assane Diop génn na àdduna yow maanaam affaire yi nan la la dikke waa dañuy sant yàlla sunu borom comme niñ ko waxee rek ku li ndaf seen zaay xatin mawti ba kenn bu ñam dund bés dina ñëw nga ñam dee te comme niñ ko waxee rek bés dafay lebal bés waaye bés day fay bés boo ñëwee si bés bi nga xool nga xam ne kii lu mu liggéeyal nit ñu lu baax kese la. te aussi comme ni ñu ko waxee rek bés bii dafa wara tax ñu fat Assane Diop mais tamit ñun ñu fàttali suñu bopp bés dina ñëw dootuñ mënati dara dootuñ ñu sàng dinañ ñu takk dinañ yóbbu suuluñu dee nag dafa nekk loo xamante ne kenn amul garabam kenn amul fajam moo tax bu ñëwee rek ah dañ koy nangu rek te xam ne yàlla suñu borom kenn du xëccoog moom mais kii fi jógee doy na vraiment nekk koo xamante ne aussi tamit dama naan yaayam. ñàkk na doom ñàkk na xarit ñàkk na mbër jibi xaritam ñàkk na seex waa jokkul waa tëngéej ñàkk nañ seen doom waaye Modou man maa ñàkk mbër waaw man maa ñàkk mbër mhm. di ko ñaanal yàlla foo mu jëm gënal ko fuuf fi mu jógee yàlla na suuf woyof si kawam lépp luñ ko ñaanal rek yàlla na nangu yaayam ji fi nekk aussi tamit yàlla sàmm ko wattu ko ndax doj na coono yoo xamante ne nii damaa fekk gis waaw damaa fekk gis vraiment dañ koy masawu di ko wax am xolu muñ ndax xam nañ ne Assane doomam la Assane xaritam la Assane bërëm la lu muy daj yëpp ci ay tàkkusaanam lu muy daj ci ay bësam ah, jafe na yaay di koy daj si doom dër ah, jafe na trop di jaajëfal ñi fi teew ñëpp waaw xëy na nag xol yee fees rek moo tax mënuñu xaar.